draw bi waaye fi mu nekk suñ ñaareelu wiina yi am nañ leen léegi léegi fi mu nekk dama bëgg rek ñu try ñu try di leen am balaa mhm. loolu waaw nekk si seen ci biir eh, Moustapha yow waxal li nga xam ne moo fi xew léegi si suñ mbokk yi man diñ koy balaa ñoo raab parce que waxtu bi mu ñoo xala jaamu eh. be ba ñoo amee ñi ñoo kool baraka baakeramu eh, mel yaalon ko wolle gañeeta moo fulol mi yaalen no mbal fundita ñaa e mba falaliya e ko e, ala baraka anndun e, makasilo fele a yeletaali e bi e tamsel ye makasilo yelendaale alala demaro ton aɗum e kabo biila gamsel ni bota jande ton nin mal sotono sain fana nin bota jam mbaal ko alla le mhm. pour gayitandalla ko a tolle ketan mooti meliyalon ko gamsel ya tolle tombon alala demaro ton léegi moustapha pour eh. nga wax leen lan nga la xam ne ñoom ñii moom lañ gagné soo déegee suñ package bi lan la ticket la ak lan e ramu ngaaloom mee taw falale bari fon saa mhm. foye fana e sénéa mhm. eh, ni moo mooye maka ticket o gagné gamsel bulu mbe ticket o sanna ngaa dii la mhm. e nibita mbe dollar kolo wuli kilingo diile maari la o wuli kilingo o muy la pocket moni la te komi ka fo na najifa kono koɗo kantu nibita tamola fo e si fankanta koɗola mi yalon ko wala ɓiila kuwodol la mu mel ni rek suñ fukki ujaaj yi dinañ am fukki ticket ak 10000 dollar boo xam ne dinañ leen ko jox mooy seen pocket money mel ni kenn ku nekk am nga ticket ak ak ticket bi dafa am accommodation si Makka ak Midam Mina ak one thousand dollars pocket money ba pare tamit dañ la dee jox wolis ak yeneen yeek yeneen yi mm-hmm. hmm? wol beebi jeele naw dool fonne nun ko gamsel ka wolis wol sanne nke dinna kiliya noon lamel yaalon koye bita makka mm-hmm. nin tol bita namol bita makka e eh, nke la feŋo bee leda daa i buka bata kuda bata da soto je nke la feŋo bee leda daa nka murun ntolle ka na vanota nke samba fo airport oto nga kuwol bee ke nga domorol dila nga feŋol dila foye ɗum pleno kono mm. ngana sayna adu nibina fana inata ta o wati, e kantol taraloren jeeɗe ma koye yela kunewol bondi yela feŋol be bondi ñe bulandi namoro kono ñe sambe la suwol kono Legi mbokk yi yéen ko dégg dafa mel ni waxtu léegi tey mu jaamuñu ñu wax ajaratu ndey seen bu tàggatoo gaa yi dig ku bugg def ni ñaar ñii ni nag naka ngaa def ku bugg def ni ñaar ñi dara mu mhm. mooy scratch and win bi nga xam ne ko gis te ko li gëna neex ci mbir yi Jaliba moy scratch and win bi dafa am winning bu fa nek liko dalé 5000 10000 1000 ba 500. waye so scratché mën nga am winning jali ba ñu jox la ko nga def ci sa poste ba paré nak nombre ba demati ci computer ba di la xaar ci mak gi. waaw tàccu leen loolu waaw Jaliba. ñaari gañe mu mel ñaari win. <laughs> ba pare nag winning bi li ci gën a tee neex beneen mooy yow da nga jël nomba bi dugal ci sa mobile bi di ci wax. yaa ngi ciy wax faj ci sa soxla ba pare defati ci leneen. amati ci yeneen ngañ maay mooy li nga xam ne moom lañ leen indi li ma la mun a wax jali baax mooy gamsel bii lépp a ngi ci biir mm-hmm. gis nga lépp suñ ne leen lépp a ngi ci biir mooy dafa am lu ñuy juqi am lu ñu bàyyi ca biir dañu am lu ñu juqi waaye la ca biir moo ëpp li ñu juqi kon donc yow daal baatin nga wax moom baatin laa la wax de te xam nga moom gamsel baatin lay doxee waaw baatin lay baatin lay doxee ndax mooy nooma naayin mu ngi nii mooy nooma naayin nag soo ko seetee ci baatin mooy baatin bi rek nooma mooy li nëbbu li feeñ la ca kaw la ca biir mooy lépp mooy nooma naayin kon tàccu leen yaa ministère ci loolu dali baa yow tamit ñu bàyyi la nga tàggatoo suñu client yi eh, aboda ko la ñaame mbaadi ngolu a taata jang a naata jang mm-hmm. Eh, même kuwo be muntu bantamuti wala ñinti ko nga nay no no nga bula gamsel no mar dong bayra atele be lori ñi jang atele atele mun taati eh, e ñing drôle men yalan koy fundita teng i financi keno gagné laati ibe continuer la dong yela keme fonkol sang scratch and win coming yamu ya ministère la jame ici wini jama so don wakon kadi i gagné tele i lefta men kuman la yewo soto o mo gagné kilinati gagné do fanam bi je e isi wuli lulu soto wuli tang kodi jama anin fe jama wo kola fananga be dunna computer kono be tarle denderi hani kabi be mako e kam pour ni ngi hiji ko fananto woto e tine jamale ba kono tine jama e ka fo men eh, ko kili tine fula e ko kili woto na tendu baɗigol allah juberola ana allah la nga ñatlin gam la nayno nayno kesoɓe wole to nayn am jërëjëf Alxaaji ehm, Jaliba foog naa ne loolu leer na Moustapha ma bàyyi la nga tàggatoo bala ma jox ni ñi am numbers yi nga xam ne ñoo win lamo eh, la jaliba be fole ani ya ministère sain kay eh, wato man si amen tuta jin ba fala men na aliyamo ele gamsel nga programme do ke wala mun na haj loncinti nka fa moli a bebi janne Eh, a bee bi mm-hmm. wo mu man ka kaŋ te wala ye ko mm-hmm. gamsel fion bee le bi a bee gamsel ni niŋ la a bee soto la fo gamsel mm-hmm. kanton a bebe wala to mm -hmm. e wala mo nyin san dol tin kamel funtindi nyi haaj pake jol adu ngamel na mel bije wala fa mhm. ko le fa sembo mhm. warta lol degal la mustafa li nga xamne mom lañ gene li des mu ëpp ku baña mankele wala nga ñaka mhm. ah fokk na ne comme ni ko jali baadi waxe rek topal nine bi nine bi mom njëriñ rek la nine bi xewal la waaye ba léegi mbooloo mi ñu fàttali leen ne ñaari nomba tay ñoo fi génna nomba bi njëkk a moy 931 9140 su fekkee yaa ngi seetaan ak numéro bi ñaareel bi génn mooy zero 9900846 9900846 dinañ la call nag pour jël seen details si jël seen information pour mun a commencé ak yéen parce que ñun léegi la ñoo door a yéen soo leen eboo sa ëllëg ngeen léegi nii door leen ngeen di tàggoo. waaw waaw su leen suba nga dem pengu. parce que ñun rabu nañ tàggoo de <laughs> rabu man maa wax seen borom ne nañ tàggoo. mu ngoog ndey bu ñu tàggoo dinañ dem. waaw waaw waaw ndax gamsala leen ko dig te daf leen di yóbbu. tàggoo leen di ngeen am seen pocket money thousand dollar ngeen am seeni i baak am na gunge leen ba airport dama ne tàggoo leen ku leen neex tàggool. Hmm. maa leen jox yoon wi tàggoo leen boo leen tàggoo di ngeen dem tàggoo leen kon nag ñeen ñi nga xam ne yéen a gañe tàggoo leen yéen ñiy leen toog leen ngeen di yaakaar ndax eight nit ñoo des. am na ah, kan- kan ci kan lañ ci am allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah kay maa ngi yow. <laughs> dañ ah? waaw Diop. ba Diop yes Diop fan. non au yëndum laa dëkk waaye suma sob bi moo nekk Diop Traité Serekunda si marché bi. waaw waay waay yow ma bett bi comme affaire ma dama foogoon ne dañ maa tooñ rek. ah waay waay du tooñ de waaye ñu ngi laa ndokkeel. waaw la wax ne am um, congratulation yow yaay suñu first winner bi. te yàlla wërsagal na la di nga bokk si ñi nga xam ne ñi gamsel di yóbbu. Ah. ndax yow mus ngaa dem Màkka. waaye mosuma génn sax Gambia nga naan. Eh, aywa yow lii de waay waay waay bi tey gaayeen yi dinañ dinañ la ñeede. Ah. bareel nag yaa ngi ci yoon wi incha allah. léegi loo am pour waxtu liyaan yi seetaan. waaw bii kañ moom xanaa rek ma def suma laay bi ma gaa tritim tritim ka laame ma def ñu gamsel benn yoon rek. ah, ah moom moo góor de ak say ak say sista yeeg broda yeeg ñëpp. you see. jërëjëf waay ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi laa ndokkeel. maa ngi leen maa ngi leen pees nii non. jërëjëf waaw jërëjëf waay. thank you very much lii neex na ah mbooloo mi amuloo keneen yéen a ko déggandoor nañ leen try fi mu nekk bi ñu des ñu try keneen kii parce que li tax ajaratu mm-hmm. dañ bugg a muy dee leer mm. gis nga nit ku nekka mm-hmm. soo génnee morso lu mu weex weex weex weex mm-hmm. ñi bugut ne la xonqal ñi ne la xonqal <laughs> waaye télé bi yàlla dimbale nañu his excellence si Cheikh professeur waay waa jàngoo yaaya ejjee jaame góor déedéet gis nga nag ah. ku wax foog nga dellu lii góor fi def lu kenn def nii mu tàccu leen waay waay moo bu tele amutoon tey dinañ ñu weddi waaye yàlla moom mm-hmm. tax na kenn du ñu weddi mm-hmm. kon nag moo fi indi tele moo fi indi gamsel mu ngi nii <laughs> moo fi indi tele moo fi ñu ngi kontaan bu baax di ko wis happy ramadan mm-hmm. di leen wax ni ñu ngi leen a dig daje beneen yoon dinañ jël si waat pour tànnaat suñ yeneen ñaari um, ujaaj yi yéen ñi gañewut na continuer leen di root scratch and win bi nga xam ne bu green bi la bu hundred dollars bi di ci winee sa ten thousand win 5000 win 1000 win 500 ba pare lifin boobu comme ni nga ko waxee léegi pin mm. number boobu dafaa dem si système bi ñu loodal la yëpp booleel la mm-hmm. nga dal di gagné mm-hmm. so ñu ngi leen a wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kay ñu ne am nañ keneen kii li xewal la gaawal Moustapha ñëwal gaawal léegi tey suñ time jàmbu ñu waaye dañ bugga ni kële bëggee ni ñu dégg keneen ki moo ko mu xaar hello asalaamaaleykum salaamaaleykum góor lañ <laughs> yow kan la nan nga tudda